alors euh, ñu jox suñu invité kaddu gi Samba gis nga reportage bi euh, ak li xew comme ni ma ko doon waxee tout à l'heure est-ce que les Sénégalais ont ont raison de s'inquiéter parce que la yaakaar naa ko laaj rek le maître moom mooy que ni euh, peur. waaw tiitange. d'abord ñi nga xam ne dañoo génn àdduna leen ñaanal yal na leen yàlla yërëm te xanaa na àjjana yóbbu leen ci àjjana yi gën a kawe leen ñaanal. Mm-hmm. di wax ni lii moom day tax rek nit ñi war a amaat taxawaay. Mm-hmm. taxawaay bi mooy di kañaat te defe naa ni loolu comme ni nga ko waxee léegi. le premier ministre chef du gouvernement. qui exécute la politique di chef de l'État. muy le président premier ministre Ousmane Sonko. defa naa ni li mu wax il a été très clair. gën a kañaat sunu force de sécurité et de défense yi. Euh, ñu ngi def liggéey mucc ayib. mais dafa fekk ne derrière chaque sénégalais kenn mënu ci teg benn homme de tenue. mais dañ leen di ñaaxaat pour ñu gën a dolli mais daal ci njeexital moom euh, metti na parce que boo demee même dans les développé comme les États-Unis dem ay meurtre mais kenn moo ñëwuñu woon nii ñun Sénégal wax dëgg yàlla maanaam day nekk lu bees ci ñun parce que xamuñu woon lii mhm. violence bi xamuñu ko woon kon bu demee tey ba nga xamante ni comme ni nga ko waxee fekk la sa biir appartement def la lay def affaire di tegaloo nii dee yi di tegaloo nii ci insécurité y a de quoi maintenant s'inquiéter maintenant ñi nga xam ne nag ñoom lañu jox réew mi nga xamante ni ñoom ñoo gérer sunu kaaraange sunuy bien ak sunu ak sunu sàmm sunu sunu sunu moomeel sàmm ñu ñun defe naa ni dinañ ci jël euh, li nga xamante ni ay décisions yiñ ci war a jël la euh, di ci profito waale rek di wax ni aussi ñun ñoo leen war a jàppale ñoom parce que njombe gu mel nii li njombe mënu koo weesu faat bakkan kenn xamul kan la ñu tàmbali salaamaaleykum waxaguñu sax maaleykum salaam enquête bi nekk ci ay loxo ay OPJ des officiers de police judiciaire mm-hmm. enquête bi am na foo xam ne eggagu fa woon sax nit ñi dugg ci réseaux sociaux yu mel ni mel ni mm-hmm. léegi justice bi réseau sociaux yi ñoom ñooy tranché damaa yaakaar ne loolu mën na brouiller piste ñi nga xamante ñoom ñooy enquêteurs yi parce que ñun nañu jàpp ni information ni mu amee rajo yëpp waxandoo ko mooy njombe am na Pikine mhm. double meurtre am na ñëpp naqarlu ko ñun foofu la ñu yem la am ak enquête baag nangam ak nangam loolu la ñuy tuddee le renseignement loolu du l'information ça c'est le renseignement maintenant loolu c'est destiné aux force de sécurité et de défense ba keroog muy egg nag mhm. ca njobbaxtal ga mhm. mooy fa ñu leen di àttee mais durant tout ce processus dañoo jàpp ni maandu war na cee mën a am ba ñuy mën a dugg des fois ci secret bu ma neexee ma tudde ko de l'instruction parce que am na wax yoo xamante man mu ko déggee sax bëgguma def digression mais mais je pense que il faut que ñu ñu kii c'est-à-dire ay jamono mm-hmm. lu ñuy wax mbirum euh, euh, régler mbirum réseaux sociaux yi euh, xoolaat ko ni nga xam noonu lañ koy defee parce que daf mel ni marché bu tas la ah. est-ce que tey lii du relancer un peu le débat sur mooy mooy mooy mooy mooy li may wax rek mooy li may wax rek xam responsabilité dafa am solo mm-hmm. ndax lan dama war a am te ci njeexital bi yëpp lenn rek la information man maa ko njëkk a joxe damaa soxla temps de mille vues. exclusivité exclusivité nangam ak nangam te koo xam ne man damay toog sama kër rek yor sama téléphone bii rek yor sama chaîne rek bëgg ay nombre de vues bay wax loo xamante ni mën na yàqal sax. les forces de défence et de sécurité yi nga xam ne ñoom ñooy def enquête bi te yow rendre ci compte yow. mais loolu bu amee gisuñu procureur génn jaww. bon pro procureur. Euh, parce que d'habitude bon lu mel nii est-ce que tamit gënul woon. gënul woon euh, en tout cas euh, je sais pas dal xel. ñu gis ci procureur. génn wax ak mhm. wax ak askan wi. parce que lu lu teg loola en fait. lu waaw xam nga xam nga tey yow même boo nekkul woon tey jii ci télévision bi nga nekk sa kër tey yor chaîne tey jii am na tey jii loo xamante ni yow doo ko wax. mu ngi dépendre rek ci responsabilité nit ki nga xamante ni moom mooy yëkkati kàddoom di wax ci loo xamante ni peut-être mën na indi gàllankoor ci enquête bi. pas dugg ci ci ci institution on sait très on sait très bien que du dugg. dans les secrets mais li ñuy li ñuy wax xam nga xam nga le fait li ñu naan ku wax feeñ xam nga le fait de am na moo yoo xam ne boo ko utiliser rek ci loo xamante ni jusqu'à la preuve du contraire mënuñu wax nit diw mii la kon am na loo xam ne maandu ci rek bàyyi justice donc lii xew ci réseaux sociaux yi mën nañ leen bàyyi ñu continuer sans pour autant de euh, ñu calmer leen. diffuyaade leen non non lii il faut ñu wax ci moom parce qu'il y a jusque là pas une autorité bu ci wax. non man jàpp naa ni au moins que ñoom ñu xaw a. jàpp naa ni. àdduna bi moom xam nga dañ naan liberté liberté liberté liberté mais liberté dafa am fu mu yem ah, fa mu yem dafa am responsabilité avec un grand R responsabilité c'est très important man dama jàpp ni nit bu nekk da nga war a nekk responsable jusqu'au bout de tes ongles ci lépp ci waxin ci doxin ci lépp mhm. ci lu mënti nekk ci àdduna loolu tax sànq ma ni la man jàpp naa ni sama njort tey yow am na foo xam ne tey doo fa egg tey ci lii nga xamante ne tey moom moo am fee ci Pikine bay wax wax yoo xamante ne dafa lay leer ne kii muy wax di dugg ci loo xamante moom waru cee wax waaye loolu responsabilité am la moom kon jàpp naa daal ni. Mhm. wax dëgg yàlla nañu bàyyi na ñu wóolu suñu force de sécurité et de défense. man mhm. gëm naa ni fii. Mhm. yàlla na bu yàlla nañu yàlla dimbali ci yi nga xamante ni moom moo fi am. mais tant mu ngi fi am. tant que mu ngi fi am. nañ ni bravo. bravo bravo trois fois à nos de sécurité et de défense. Mhm. voilà euh, li nga wax léegi léegi c'est vrai mënuñu def euh, benn policier ginnaaw euh, sénégalais bu ne mais jàpp naa ni war nañu tamit gën a renforcer li nga xamante ni moom moo di sécurité yi. police de proximité waaye it gën a def lii di ay commissariat ngir gën a aar ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi ndax boo xoolee agression yu bëri monsieur Tall foofu ca banlieue bu dakaar lañ koy faral di nemmeekoo. waaw xam nga. même booy xool ci projet de loi ci projet de budget yi nga xam ne dañ koy voté à l' assemblée nationale presque quasiment muy ministère des forces armées intérieur ak yu ci gën a bëri mhm. xam nga gendarmerie ci ministère des forces la bokk yu ci gën a bëri yu ci gën a bëri presque duñ ko laal parce que dañuy xam ni lii kii la nuñ ko waaye nécessité la pour ñu pour ñu pour ñu pour ñu def ko mais booy xool li ñu recruter depuis depuis depuis depuis deux ans yi ba bii mujjee génne nii. li ñuy recruter ci ay ay ressources humaines. li ñu jënd ci matériel boo xoolee euh, les forces de défense et de sécurité. Mhm. am nañu matériel boo xam ni matériel mucc ayib la matériel nag du doy du mës a doy. looloo tax ñu ne encore wax nga ko léegi. mais effectif bi tamit effectif bi. waaw moo tax ma ne la. Mhm. li ñuy recruter laa wax. Mhm. c' est des milliers et des milliers actuellement la ñuy recruter ay deux mille trois mille quatre mille. police que gendarmerie confondu ay 5000 6000 defe naa loolu aussi c'est un pas loolu dañuy wax encore. ñu gën koo ñoŋal ba nga xamante ne dañuy gën a bari gën leen a dooleel matériel bi aussi ak assistance bi surtout au niveau. au au niveau des des des. Mhm. des communes quoi mhm. et des quartiers. ci ci mhm. feewu reportage bi laal nga point bu am solo muy mbirum peine de mort. je pense que saa suy amee dañuy gis ni sa relance le débat. Euh, sur sur la peine de mort. Euh, am na ñu ne d'accord nañ ci am na ñu ne d'accord wuñ ci yow la moo sa position. man sama xalaat daf cee daf cee daf cee daf ñu koy ni ñu koy waxee daf cee claire mooy que ni dañu am njiit. njiit boobu mooy son excellence. Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu am un chef de gouvernement. jógooñ benn dëkk ñëw fii fii lañ dëkk Sénégal gi lañ dëkk xam nañu réalité dëkk bi mhm. xam nañ li war ak li warul man jàpp naa ni décision ñoom bu ñuy jàpp mûrir ko ni bi moo gën rek dinañ ko teg pour le mettre en œuvre uniquement pour l'intérêt des Sénégalais et des Sénégalaises. d'accord waay Diaw looy asu voilà donc merci beaucoup yaakaar naa ni ponk bu am solo la lii di mbirum peine de mort di fàttali rek ci réew Sénégal amoon na atum 1967 ñaari nit faatoon nañ ci leen kenn koo xam ne bëggoon na faat bakkan Euh, président Léopold Sédar Senghor ci jouru tabaski euh, keneen ki mooy koo xam ni dafa rayoon député Demba Diop nekkoon député maire Mbour ñaar ñooñu la ñu jotoon exécuté fii ci Sénégal 10 euh, décembre atum 2004 Abdoulaye Wade daal di ko abolir ñu promulgué ko ni décembre atum 2004 donc ponk baa ngi noonu ñaar fukki at ci ginnaaw ba léegi ponk bi dafa daal di delluwaat ci table Bara Dolly nee dina def proposition de loi yóbbu ko foofu ca pencum ndaw réew Sénégal ni ki amul bu ñëwaatee foofu ci assemblée nationale dina indiwaat lii di euh, boobu les propositions de loi euh, merci beaucoup Astou Dione merci Amadou Diaw moom moo ñu indiloon tey sujet bi nga xamante ni moom moo laal mbirum euh, insécurité je pense que c'est d'actualité euh, di fàttali rek ne euh, Sénégal jamono ji li ko gën a marqué en tout cas en matière de de de faits divers surtout lu jëm ci li nga xamante ni moom moo jëm ci mbirum faat yooyu mu di sa double meurtre qui s'est produit foofu la ca Pikine Technopole impliqué ki nga xamante ni moom moo di Wally nekk neveu danseur boobu ñuy woowee Aziz euh, Ba di Aziz Dabala euh, jamono ji nag ñi ngi toujours ci li nga xamante ni moom moo di euh, seen ay enquête ak yu demee noonu du ñàkk bés bu ñu ci amee lu ci gën a leer lu leen mën a exposé bien sûr dinañ leen ko jox Samba je pense que du ñu jeexal te waxuñu ci ba tey ci coowal politique la mais surtout li nga xamante ni tourne autour du PM